MCS International, études et formations à l'étranger. Vous êtes élève du terminal, bachelier ou étudiant, obtenez votre admission dans les universités françaises, américaines ou canadiennes. Grâce à MCS International, vous bénéficierez d'un accompagnement et d'un suivi pour la réalisation de vos projets d'études supérieures à l'étranger. Contactez-nous vite au 33 868 69 28 ou au 77 826. Albori, c'est maa ngi lay siyaaraat alaaji ceer mu baax mi waaw alhamdulilah ñun moom ñu ngi si jàmm bu baax a baax toujours ñu ngi si jàmm. ñu jógee si diggante ak zoo technique am ndam ci kawam ñu toogaat tuuti ñu gis sa combat taxaw tey muy sa diggante ak njambaan lan moo la ko jëlloo. ah non affaire moom ñun ay mbër lañ te mbër bëre ñun suñu sañoon chaque jour dañuy bëri même bu amuñ combat ren sax dañuy dugg ci àll bi dem bëri ji kon ñun amuñu temps daa am fu ñu suñu bët mais du njambaan mi xaw ma njambaan Dakar. dag may déglu ñun daa fu ñu teg suñu bët te nee naa la ku ku war ñay ba wàcc ko loo war leneen rek war warit la yi nga war ak ñay bi tolloo hmm. ku wàcc ñay xeeb nga gileem nee la kii boo gisee xam ne yaramam bi liggéeyul hmm. kaani salaat dijji na torop waaye saful dara yaa ngi dégg kii la ma la waxoon du ma ci jóg hmm. du sama yoon sa yoon da jël ko. du sama yoon. après combat bi ngeen xam ne kii du sama yoon. te du lakk néegu tan du fa bàyyi bu ceeli. maa moom du niveau. mais nee nag yow da ngay li ngay wax yëpp ay comédie la mais suufulee li ngay wax sax doo ko jëfee man xam nga ne man forcé wu ma dara man li nekk si man rek laay génne. nit ñi di ko concerné loolu nit ñi la concerné. Mm. mais man mbër laa pire kaamil. te bu jour baa ngeen di xam ne njambaan mii xaw ma Dakar maa jóg ku naan benn ñaata la ku naan saam ñaata bokkuñu. moom lu muy wax saam ñaata wala benn. moom benn ñaata la wax man saam ñaata laay laaj. moo leen bokk yee ñaar. waaw mhm. su ko dul suukar du bàyyi neex man la xale rimbili rimbili. ba tàcc bin bin ba tàll pax pax xale bi dégg temps te musta wàcc temps. non nee na da neexal nag mais loolu amul ci biir digiri temps rubine temps taj temps ku mënta fecc mënoo bëre. Hmm. bu mënul fecc mënul bëre. non kii daan fecc kan la géej waaye la dëkk. mën mënta fecc. kii tànk yi bu arrière daanu bu avancé daanu <laughs> na dem wuti beeke dem jàngi dox hmm. waaw maa ngi moom du du hmm. bu jour baa ngeen xam ne maa moom du mat. ni mel ni arbitre dina sif la nga dox si ko ni mu toll nii laaj man naa daan rek hmm. lu mu laaj naa ko def man naa daan rek tax moo gën daf ma war a yóbbu États-Unis dama gis nag ma dox ci suuf si naan ci ndox mi lekk ci hamburger yi dem ci douche eh, eh, eh. non foog ma dem États-Unis voilà arbitre bi arbitre la nga dox si kawam nekkul danger yow. man kii man ñi ma bëree ñoo ko ëpp fuuf loolu laa bëgg nga xam ko booy Mafal Seye moo ëpp kii booy Marona moo ëpp kii yaa ngi dégg Zal Nengeler moo ko ëpp doole ñaari yoon yaa ngi dégg man rëy jaaxaluma kii kii bu so kii kii kii soo waaye kii mënut xeex. yow kii ndaanaan bu rek ay ndaanaan ay ndaanaan bu soobee yàlla naa ko may mu dóor ma ñetti coup ndax man ay coup am ba booba. kii bu kii sa. kii ay coup am dafa may may yaram instant bi daal wax amatul. dara amatul. yàlla def na affaire bi taxaw na Youssou wayul waali tëggul. mais nag nan toog xaar. Uh-huh. mais nag Alboury dama na gis su amaan combat da ngay firi xapi mais tay dama gis ya ngi mel kuy lox quoi. yow man nga tir bi nga gisé ñamaan. <laughs> dama ne la. lamb ji. ñëw na ba paré te journée bi dina neex nañ jàpp ne Alboury moy ñew xalé temps bi ñun ay élément temps la ñu. est-ce que Alboury daan ñëw di la. te man tank jëluma couronne bi teg sama li sama li hein ah? mm-hmm. barki sayidina muhammad du du ki momay may Ame ah, kita kii tamit ngom du match yo xol ko ñu mu toll gis nga réew yi. nee na da nga doon yoru mais yab. la instant bi ni wax ju ba wax ju bari man ka mi wax la de man sama wax wax wax yeb hmm. après lamb la ah mais bu lamb xasse taxaw dama xam ne combat hmm. te duma xeb mbeur wax deug yalla ma ngi koy dimbali. da nga ko dimbali ci lan mom lamb da ko faté bo duggé YouTube barki Serigne saluk. YouTube lañ dugg ñambaan dara ñëwul ah benn combat lañ gis taxaw man man damaa damaa ruus dama ne woon waruma ko woon jël mais làmb la comme que làmb ji xas na ba taxaw làmb làmb la man du ma xeeb bés te dañ maa yónni yàkkamti ma te la sama xaalisu làmb dafa nekk CNG sama xaalis man dama koy jëli te du kii moom ma koy yàqal. ba ko xoolee moom lu koy daan. bu ñu demee xool nañ ko gis nañu ko. ndax ñun adversaire jaaxaluñu bu soobee yàlla buñ ñu dinañ and ak wa écrit sañam liggéey li ñu wara a liggéey ah dem fi ñu war dem bu jour ba ngay comprendre ki du pousse du passe néna la bu avancé daanu bu arrière daanu tànk yi baaxul jàngu ko dàq bëré xawma ma ku dàq xeex xaw mais de toute façon albiru tay delloo avance vraiment da nga delloo avance néna la bu jour ba may may bëré may daan may fecc waaw kay kon ba ak. te yàlla ku mu nattali fay du la xëyloo. man damay liggéey bu baax a baax mu dem liggéey. kon yow da nga wax ne njambaan liggéey. dama ne la mu dem liggéey affaire bi du wax. la wax. ba muy liggéey mi ngi nelaw. ba muy liggéey mi ngi nelaw. dama koy duma. dama koy duma. barki sëñ Tuubaa dama koy duma. néew yi ak duuf buñ ko jaawale. nga ne ki dafa néew yi <laughs> faïence yi nga xamante ni dafay décorer sa cuisine ba mu ne boy ak li nga xamante ni moo di sa salle de ànd ak décoration bu amul fenn ay karo yoo xamante ni boo ko defee sa façadu kër da ngay mel ni ku nekk ci panaal établissement Khadim Rassoul seeni karo du jël benn yoon ndox ba noppi ay qualité yu baax la ñuy jaay te seen karo du yàqu waaw waaw kon nag yow mi bëgg ay karo yu baax dawal gaaw seeti waa établissement Khadim Rassoul ña nga nekk ca Parcelles Assainies ca booru marché police ba seen numéro téléphone 33 820 39 95 wala 77 720 32 44 établissement Khadim Rassoul nag dañuy ubi du lundi au dimanche ah dama ne kon nak bo ay kar yu bax dawal gaaw seeti wa établissement Khadim Rassoul ña nga nekk fofu ci parcelle Assainies ci marché police établissement Khadim Rassoul le choix de